xaaj bu njëkk bi ci ñeenti xaaj yi yàlla sàkk na lépp li feeñ ak lépp li nëbbu tey dinañu waxtaan ci mbirum ni yàlla sàkke asamaan yi ak suuf si yàlla mooy ki gën a màgg te mooy buur bi yàlla ji ñu topp te mujj ju dëggu ji moo gën a màgg suuf si gën a màgg asamaan si gën a màgg malaaka yi gën a màgg iblis rab yi ak bépp mbindeef loolu xam nanu ko ndaxte yàlla moo sàkk lépp yàlla aji sax ji am xel la yàlla amul ndorte te amul àpp yàlla sàkk na malaaka yi lu yàgg balaa muy sàkk suuf si malaaka yi ay mbindeefi xel lañu yuy jaamu yàlla kenn ci malaaka yi ñu koy wax iblis dafa bëggoon a teg boppam yàlla noonu muy fexe wutu yàlla yàlla daxe ko asmaan moom ak malaaka yi ko topp yàlla wàcce leen ci kaw suuf yàlla soppi tur iblis tuddee ko seytaane booba la seytaane ak ay rabam yu bon tàmbalee xeex coobarek yàlla ci kaw suuf benn bés yàlla dina tàbbal seytaane safara rab yu bon yi ak ñépp ñu toppul yàlla léegi ma laaj leen benn lan moo wuutale yàlla ak nit yàlla xel la yàlla amul ndorte kenn sàkku ko ndaxte moo jiitu lépp yàlla du dee mukk ñaar lu tax yàlla dàqe iblis asamaan ndaxte iblis dafa bëggoon teg boppam yàlla tey fexe wutu yàlla kon iblis déggadil na yàlla ñett ci seen xalaat ndax déggadil yàlla bàkkaar la waaw ñent ci nettali bi lan lañu gis ne bàkkaar dina ko indi li bàkkaar di indi mooy teqalikoo ak yàlla juróom teqaliko boobu ak yàlla lan lay wone ci mbirum yàlla yàlla bëggul bàkkaar te dafa koy atte yàlla moo ëpp doole seytaane ak i gaayam juróom benn maanaam seytaane ak ay malakam yu bon di def léegi dañuy xeex li yàlla tëral